non yaakaaruma ko parce que vraiment boo dégloo euh, pouvoir bi autodéfense gouvernement bi majorité bi ils sont mm. sur l'autodéfense mm. euh, et ça ça masque dafay masque réalité bi euh, alors que problème bi comme ni ñu ko waxee dem problème école par exemple c'est profond très soo xamul les racines la doo am fleur c'est la même chose pour la politique mm-hmm. situation bi c'est une situation politique kenn ñaanul woon lu am le premier le deux et le trois juin mu am c'est pas Pastef c'est pas Sonko c'est pas euh, Yewwi Askan c'est pas Macky kenn bëggul woon loolu dal ñu mhm. mais dal nañu lu ñu dal gouvernement bi mënul jàpp rek les questions de sécurité ça c'est une démarche trop parcellaire ay que y a des forces occultes qu'il de a des gens armés il y a des bandits a ça c'est vrai mais soo yemee foofu rek da ngay bàyyi li nga xam ne moo sabab loolu am gis nga président Macky aussi dafa war a bàyyi xel il y a peut-être deux ou trois mois moom moo jëndi l'option sécurité absolue des bien et des personnes si le président de la bi mu ko waxee ba tey ji le dispositif de sécurité est là c'est l'option de Macky Sall mais événement bu mel ni toll ni fekk yow tu as pris toute ta toutes les dispositions <coughs> nga am événement aussi grave aussi important da nga war a seetaat sa stratégie c'est pas seulement les questions de sécurité absolue il y problème démocratique bi nga xam ne solution sécurité rek mënu ko résoudre y a un problème de justice comme ni mu ko waxee sécurité rek mënu ko résoudre y a un problème surtout de confiance diggante njiitu réew mi ak opposition bi mais loolu sécurité mënu ko gérer y a y un problème de malaise social des jeunes de l'école de l'informel mais loolu sécurité ko kese mënu ko régler donc ça veut dire que ñoom fu ñu jàpp c'est parcellaire du ñu gis le vrai problème le problème il est global donc pour man il faut que majorité bi ak opposition bi nangu toog pour def diagnostic comme ni ñu defee diagnostic école mais nañu def toog def diagnostic crise bi tant que defoo diagnostic bi hmm. soo indee solution sécuritaire rek doo ci génn wa wax na par exemple lu xew ci euh, yeneen réew yi euh, Afrique mais est-ce que waruñu jàngaat lu xew euh, par exemple Guinée lu xew Mali lu xew euh, euh, Burkina c'est que pays yooyu c'est exactement la même situation qu'on a c'est-à-dire troisième mandat mhm. problème de dialogue entre pouvoir et opposition problème de liberté publique c'est les même problèmes ñun on a les mêmes problèmes est-ce mmh. que waruñu jóg ñu xool ban solution lañu mën a am des solution consensuelles je prends l'exemple bon ñi nga xam ñaari exemple c'est euh, la troisième candidature. Mais troisième candidature, c'est le nœud. loolu mooy source principale de toutes les tensions ban dialogue la ñu mën a am heureusement que Macky Sall nangu na troisième candidature bi nekk objet de dialogue objet de discussion au dialogue national. Mmh. heureusement mais beneen question bi mais c'est que mu neex leen wala mu nax quel que soit ñoom lu ñu xalaat ci Ousmane Sonko ak Pastef c'est-à-dire Pastef am fu mu toll mënuñu écarter Pastef d'un dialogue politique ça c'est une question elle est aussi importante que la troisième candidature c'est la même chose pour Karim Wade c'est la même chose pour Khalifa c'est la même chose pour d'autres euh, aussi soo xoolee parrainage bi donc les vraies questions politiques il faut que majorité bi nangu un débat contradictoire un dialogue pour ñu au moins ñu am consensus et suñu amul consensus moi euh, vraiment euh, damay ragal bon euh, Birama wax na ko sax saa gis nga suñu bàyyee affaire bi nii fii ak deux mille vingt quatre lu ñu lu ñu dab en deux mille vingt et un mille vingt deux deux mille vingt dinañu dabaat en deux mille vingt quatre et je pense que il faut quand même que ñu lancer des alertes pour que majorité opposition société civile ñu jéem a créer des conditions d'un dialogue sincère pour pour man daal trapport euh, de force bi dafa war a yem fii